Sall moomul réew mi dañu nangu ci yi nga xam ne gisaguñu ko te ñëpp Sénégal yi yëpp dëppoo ni deuxième tour mënul ñàkk ñëpp dëppoo ni deuxième tour mënul ñàkk dañu nangu Macky Sall génn moom dong am naa ndey déclaré ay résultat France ngemb ko di ko jaarale ci ay média am parce que semaine passée France 24 commencé woon na ko RFI continué ko média bu mel ni groupe Ségur Média ak sax ni 2STV moom it dugg fekk fii ci studio bi. Euh, ngay composer musique euh, tey jii di élection 24 février élection présidentielle euh, kenn ci candidat di Ousmane Sonko jaar fi le 31 décembre am fi plateau bu am am solo tey jii mu yëkkati ay tuuma teg ko ci kaw deru 2STV am na yeneen média yu mu cité 2STV bokk ci lan ngay tontu ci tuuma yooyu nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko teg ko ci kaw 2STV ak ñi ko jiite. il faut nga fàttaliku démb je suis désolé euh, d'entendre de la bouche de Sonko dire que di citer 2STV di ko boole ak ay médias yoo xam ne qui son presque corrompus ku xam sama jëmm xam kenn mënu ma corrompre man personne ne peut me corrompre wala me fair fair des choses qui ne sont pas dans les règles de l'art déglu na li ma ko wax li ma doon wax Papa Alé mi nga xam ne moom moo ko interviewé man bokkuma ci sénégalais ñooñu dama defar sama addina avant ñoom ñu juddu ñoom ñu ñëw ñoom ñëpp dama defar sama addina liggéey sama liggéey avant Macky Sall avant euh, euh, ñeneen ñeneen ñeneen asuma moom j'ai tout fait pour lui le 31 décembre je lui ai donné benn plateau bu fatt trac avant loolu Sall lui a son direct, son entrée politique. Il est venu ici, on a discuté. te sama goro la dafa am yoo xam ne nit kilifa soo naree jiite réew wala bu jiite réew am na loo xam ne doo ci dugg parce que cité 2STV ci gémmiñam moom ak ki ko interviewé Papa Alé Niang bi ko interviewé waruta woon tax muy cité 2STV yi di wax ne peut-être danañ ko corrompre pour mu joxe ay résultats pour gagner loo Macky premier tour man Macky Sall mënu maa jënd de Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade toutes les campagnes électorales maa ko géré fii de A à Z j'ai passé toute la journée à faire de la musique de la campagne te il doit s'estimer heureux parce que ñun lu aw yoon la ñuy jaar On a invité tout le monde. On a invité tous les journalistes. On a invité tout le monde. On a passé toute la journée. Campagne bi bi mu commencé ba tey nous n'avons reçu aucun centime de l'État du Sénégal. Nous n'avons reçu aucun franc de qui que ce soit. Et on couvre cela parce qu'on fait du service public. man duma TFM man duma Sen TV man duma RTS man 2S laa tudd El Hadj Ndiaye laa tudd ku nekk ci Sénégal xam na ne man duma ma wenge du ma dugg fii génn fii ñi doon wenge moo tax ma dàq leen fii parce que àddina man lu jub laa xam et je ne suis pas le genre mais je suis très déçu quand même de Sonko si lui-même il pense que élage Hadj Ndiaye et 2STV sont corrompus parce que lii yabeel la sax à la limite mais je suis je suis très désolé su mënee rectifier li mu wax moo gën ci moom parce que man kenn mënu ma jënd kenn mënu ma xoxatal et en plus kenn mënu ma tiital il faut que les choses soient claires son agent est là ci plateau bi su doon loolu du ma leen invité fii te ils ont été invités dans tous les sens ici ñoom ñëpp fii lañu ñu toog le 31 décembre il a pompé la 2STV jusqu'au rubis jusqu'au dernier truc minuit moins quart laa fi jógee lu mu bëgg. donc c'est une réaction ingrate. mais je trouve que c'est même insensé parce que mënuloo jiite réew nga nekk jeune nekk xale tu es en très bonne position tu commences à sortir dans les médias à dire que way diw dañu tëj lii dañu tëj laa na dal ànd ak sagom ànd ak fulla ak fayda li ko yàlla wërsëgal mu mu jël ko ñun on est là du fer du service public encore une fois je ne suis ni la TFM je ne suis pas Youssou Ndour je ne suis pas Bougane je ne suis pas la RTS je ne suis pas Racine Talla je m'appelle El Hadj élage El Ndiaye national ñëpp xam nañ ma et donc il faut que les choses soient claires nit ñi nañu dal ànd ak seen sago et que le maire gagne ku gagné dénk nañ yàlla dénk nañ le Sénégal mais nag il faut que les gens euh, soient très sincères et très francs dans ce qu'ils font ñun on a investi dans ce pays là et on n'acceptera pas que ñu ñuy xoqatal wala di ñu di ñu dugal ci yenn affaires yi ça ne marchera